yi gën a fës ci yëglekaay yi marhaban déglu bu attekat bi war a déglu Ousmane Sonko ci nu mu gën a xóote ci dossier mi dox ci digganteem ak Adji Sarr moom la mboolem yéeni kaay xëyee ni ki tey jilee Sud Quotidien nañu ni ki démb ci ab déclaration bi mu def ci page Facebook am moom Ousmane Sonko daal dinay xamle ni sakku na ci attekat ba ngir mu daal koy déglu nu mu gën a xóote ci boobule dossier juróom benn fan ci weerum avril mi ñuy dëgmal Témoin Quotidien nañu lu jëm ci boobule jàkkaarloo bi war a dox ci digganteem ak doyen des juges Ousmane Sonko daal dinay woteb yi ngir ñu des ci seen ay kër ci buñ ko fas yéene déglu yéenekaay bi ci biir doxalinu Ousmane Sonko ne lenn ci jublu moo fexe ba fi amoon ci weeru mars ci atum 2021 amaata yéenekaay bés bi le jour koy feelu ne ndaxam moom njiital Pastef Ousmane Sonko dafa retenir leçon jëmale ko ci convocation gu mujj ci tribunal mi daal jur ay jaamaarloo ci weeru mars ci atum 2021 ba fukk ñeenti ci ay doomi aadama daal di jaarale ñàkk seen bàkkana ndaxte yéenekaay bi àndandoom ay soppeem ngir ñu ànd dal waaye du teene moom Ousmane Sonko yéeni a moom itam dina doon ab républicain waaye nag bu jalgate loi ba dina woote waat ab résistance lu ni mel waral yéeni kaay Vox Populi ne Ousmane Sonko daa dinay woo ay nitam ci dal waaye daal dinay artu itam yéene kaay la quotidien ne Ousmane Sonko juróom benn fan ci weerum avril la fas yéene défilé ji ci kanamu attekat ba yéene kaay les échos ci wàllam di xamle ni doyen des juges ba li mu sakkoon ci Ousmane Sonko njiital Pastef ba daal dina koy defal suñu naatango yi nañu doyen des juges ba Oumar Maham Diallo dafa tegaloon ab condition njiital Pastef Ousmane Sonko nekkoon na def ab déclaration ngir sakku ci ay nitam ci bés buñ koy déglu kenn bañ a génn ngir topp ko ci tribunal ba yéene kaay la Soleil dikkaat ci ndajab conseil des ministres ñu jàmm ju sax dàkk moom la ñu fas yéene nemmeeku ci wàllum njàng meek njàngale mi li koy firndeel moo di président Macky Sall daal dina joxe ay tegtal ngir ñu jëfee daar daar déggoo yu tukkee woon ci waxtaan yu doxoon ci seen diggantek syndicat wu jàngalekat yi te ñu tàmbale koy jëfee ci weeru mai yéene kaayu laas ci jógile jamono mu nga xam le ni président Macky Sall daal dinay samp ay priorité yu bees ñu toll ci ñett bu ci njëkk moo di fexe ba ñëpp mën a jote ci wàllum électricité gi ñaareel ba di indi ay coppite ci doxalinu daara yu kawe yi di maanaam université yi ñetteel ba gën a gëstu gi ci wàllu mbéy mi di maanaam la recherche agricole la jàngeen jëf. La revue de presse sur Afia FM. Bonjour. L'audition d'Ousmane Sonko par le juge d'instruction dans l'affaire du viol présumé qui l'oppose à la jeune masseuse Adjissar occupe largement la une des journaux. Dans un live hier sur Facebook, Ousmane Sonko a annoncé avoir demandé à être auditionné par le juge d'instruction le avril, renseigne Sud Quotidien. En perspective de cette audition par le doyen des juges, Ousmane Sonko calme le jeu, écrit le témoin quotidien qui note que le leader de PASTEF et son audition veut visiblement éviter un remake des événements de mars 2021. Le leader de PASTEF aurait-il retenu les leçons de sa dernière convocation au tribunal qui avait débouché sur des manifestations de mars 2021 avec au moins 14 morts, s'interroge le quotidien Besbi Le Jour. Le journal signale que Ousmane Sonko, qui a demandé à être auditionné la semaine prochaine, a appelé ses camarades sympathisants au calme pour éviter le syndrome de mars 2021. Selon l'info, Ousmane lance la contre-offensive dans l'affaire Sweet Beauté. Jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne peut enfermer Ousmane Sonko pour ce dossier, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journal. Si je suis convoqué, ce n'est qu'une audition, ce n'est pas la peine de manifester ni de venir au tribunal tant qu'ils se conformeront à la loi. Nous serons républicains, mais s'ils violent la loi, la résistance s'impose, déclare toujours Ousmane Sonko. Ce qui fait dire à Vox Populi mais les met en position d'activation. Ousmane Sonko défile le 6 avril devant le juge et demande à ses partisans de rester chez eux, écrit le quotidien Le Quotidien, le journal Les Échos note que l'exigence du doyen des juges a été satisfaite par Sonko. Selon nos confrères, le doyen des juges Oumar Maham avait posé comme condition que le leader de PASTEF Ousmane Sonko fasse une sortie pour demander à ses militants de rester chez eux. Le Soleil revient sur les annonces en Conseil des ministres et souligne pour un climat social stable dans l'éducation, Macky Sall veut une matérialisation des accords signés avec les syndicats à partir du mois de mai. Le journal LAS met en exergue les nouvelles priorités de Macky Sall. Il s'agit de l'accès universel à l'électricité, les réformes universitaires et la recherche agricole. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.